xalat min qablihi rusul afa imaata aw qutila anqalabtum ala mi ngi yëgal mbokki jullit yëpp ni sëriñ Thiénaba sëriñ Abdourahim Seck macha allahu yàlla jëfandikoo na ci moom coobaree yàlla dogal na ni génn àddina tey jii ñi ngi wax ñu ngi ñaan fu taaliba nekk fu jullit nekk mën naa toog déglu njaboot bi incha allah ginnaaw yàlla dafa dogal bi ci biti la ko defee bu ñëwee rek danañ joxewaat information pour ku bëgg a ñëw rek teewee si incha allah nga teew loolu mooy kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko doon yëkkati ci ndigalal kilifa yi fu jullit nekk jàngal ko faaj ak ñu ci daal fukki lixlaas ak benn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi kon lii mooy li ñu doon dégtal ngeen jëfandikoo ndigal